loolu moo xewoon.
loolu moo moo moo jàngin moo xewoon.
loolu laa wax ne su fekkee ne mënees na ci dellu si te du yàq daara yi nga xam ne ñoom électricité rek la ñu ne mën a jàng.
loolu nag mën nañ cee dellu te du yàq saa yi te ñu nekk si waaye daal ñu jëm ci njàng mii nga xam ne dal na barki tey.
ñun xamoon nañu ci Sénégal.
mais xamoon nañ ci Sénégal dëkk yi nga xam ne tudd naa leen ak yi nga xam te tudduma leen.
dëkk yi mu tudd yëpp ak yi mu xam te tudd leen
bokkoon na ci seenum njàng matt lañ daan jàng.
bokkal seen njàng ñoom ñëpp matt lañ daan jàng.
daa lañ daan binde ak i alluwa ak i xalima.
daa ak àll ak xalima lañ daan bindee.
ñu wut xàmb lu rëy.
ñu wut xàmb lu rëy wala làmbara boog wala làmbara dañ koy tabax.
dañ koy tabax teg ko ci néeg ci biir borom ci néeg borom kër ga.
teg ko ci néeg borom kër kenn du ko dem.
kenn du fa dem
raxas bu ñuy raxas.
raxas bu ñuy raxas foofee lees koy raxasee.
foofee ci kaw lañ koy raxas ca làmbara ja.
te làmbara nit jóge foofu sori.
nit jóge fu sori am lu mu tawat.
am lu mu tawat wala am lu mu bëgg.
wala am lu mu bëgg kilifa ga dem ca làmbara ba.
kilifa nga dem ca làmbara ñu raxas raxas yi tànk ja jox ko.
def ka jox ko mu yóbbu.
mu yóbbu la mu bëggoon lu mu bëggoon yàlla defal ko.
ci aajo
yooyu defe naa baax na de.
te yooyu yële nag kon baax na lool te itam ñu wattu bind li nga xam ne mooy aaya yi ak ahadis yi te it ñu waxtaan nga bind alquran yi bind sura yi ak hadis yi fu ñu jot sànni ko ba fa ñu leen sànni ko fa rek ba ci mbedd yi ba ci mbedd yi ba ci wanag yi ba ci wàllu yooyu yëpp yal nañ ci yàlla musal mi ngeen dox ci réew mi te yàq na lu rëy rëy yooyu rëy yëpp daanaka ci yàlla boole musal ndax bu ñu dox ci réew mi kat yàq na lu rëy rëy rëy lu mat a wax lañ netti nëpp wax nee na ñuy kat moo tax wax ñëpp war na cee wax yal nañ yàlla defal hidaaya ak istiqaama yàlla na yàlla doon jub ak istiqaamat
te yàlla defal ñu ñu nekk mutaawinina ala al birri wa taqwa te nekk li nga xam ne ñu ne day taxaw kenn mu ci dagal yàlla ak jëm lu baax mu def ñu mutahaabina mutaaxina fillahi lillah mu dem la ñu waxee ñu ñu ñu bëggante lañu ci soppante ngir yàlla ci yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla saafara jàngoro yëpp yiy wér ak yi dul wér mooy sax jàngoro yi wér yi du wér yëpp yàlla ci yàlla saafara ni ko sëriñ Babacar waxee ko sëñ Baba ko si waxee léegi te musal ñu ca te musal bi tey nag yàlla bu ñu ko nattoo yàlla bu ko nattoo suñu njaboot ak jullit yëpp ak seen njaboot suñu njaboot ak jullit ñëpp ak seen njaboot ñi mu ko nattoo yal na leen yàlla saafaral boppam te bàyyi leen fi ba ca ni kanam mu ko nattoo yàlla yàlla saafara boobu te bàyyi leen ci dundaat ba ca kanam ak kanam yàlla may ba faw wu mënul am waaye yal na fan yu gudd lool ba foofu lool waaye yàlla yàlla may fan gudd lool ca dëkk la ba ci jamono bii ñu nekk yàlla ngi may ñaari téeméeri at ak lu ko ba léegi si jamono bi léegi nga dégg yàlla nga may ñaari téeméeri ak téeméeri ak lu ko ëpp na mu ko daan maye na ma ko doon maye te du jeexle dara du jeexee dara maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaq ndax suñu borom ne li nekk ci yéen dina jeex waaye mel ni man di jeex mu kon na wóoru ñu ne suñu guddi day jeexi kon wala suñu gi day jeex wala déet ak suñu gi day jeex suñuy seconde nag ne suñu seconde seconde day jeex day jeex minute yi minute waxtu yi waxtu yi weer yi weer yi at yi ak waaye du jeex ci yàlla waaye yooyu yëpp la duñu xeer nañu am torox lu laaj ko mu am mbaax lu ñu bëgg bu jox waaye ñu nag am soxla la yàlla lépp lu bëgg mu jox la ko ko yàlla mën na ko yàlla mën na mooy guddal fan moo koy gàttal yàllaay guddal fan yàlla guddal fan yi moo koy gàttali yàlla nañu yàlla defal fan yu gudd booleel ñu ca nag loo xam ne lii lii may bëgg woo xam na ni moom moom la jëpp bëgg yàlla na yàlla def fan yu góor jur boole ci li muy boo xam ne moom la ñëpp bëgg na soo amul rek julli gi lu mu rafet rafet dootu yàgg su amul nag julli gi lu ma rafet rafet julli gi dootu yàgg yal na yàlla def loolu ba noppi boole ci nag wërsëg wu ñu sàmme ngor ak diine yàlla yàlla def loolu ba noppi wàcc wërsëgu sàmm ngóor yi ak diine ku ci am sa kayitu kër gu nekkoon ca banque ba bëgg bëgg a suuj yal na ko yàlla delloo si ci am sa kër soo nekkoon banque bëgg a suuf yàlla ko yàlla say loxo ku ci wut terrain ba commandant may la ko te amuloo loo ko lëggee suñu préfet yal na nga am loo ko tabaxee ne ku ci wut tere ba ñu may la ko te amoolu ci liggéey suñu tere yàlla na yàlla may loo ko tabax te la ca warit nga def ko teel ca bari nag nga def yal na yàlla dimbale ba bor yépp fayu yàlla na yàlla dimbali bor yi yëpp bokk fee ñu nit yi ñu ameel ñu fay ñu ko mooy yi amee ñu sañ ko ak diine ju gërëmu ca yàlla ak diine ju gërëmoo ca yàlla te yàlla boole xol te yi yàlla yàlla boole xol yi defal ñu sutura defal nu sutura kenn ku nekk tariqa bala doy ba nga jàpp ca sa taalu bi yàlla na fa dëgg kenn ku ne tey xam nga ba nga jàpp sa taalu yàlla na fa dëgg te ñun njaboot gi nañu dimbale kilifa yi te ñun njaboot gi nañ dimbali kilifa yi lépp loo xam ne li day andi jaamaat loo wala xulo wala teqali ko kenn ku ne wattu ko lépp lu di jàmmaaroo wala xuloo wala teqale ko kenn ku ne wattu ko lu ci waay yëg mu wóor na ko lool su jëmee kaw dana am mu lu mu yàq lu mu ca wan mu def ko ca lu ci waay yëg mu xam lii kat bu jëmee ko daa am lu yàq la mu jëm rek mu def loolu kat moo gën ne lii mu nekk lay moo gën teqale yal nañ ci yàlla musal xam nga lan ci yàlla musal yal nañ yàlla jox jikkoy pusote bañ ñoo def jikkoy paaka yàlla yàlla jox jikkoy pusa te bañ naa jox jikkoy baax baay bu naamam mbaay sa goro woon ca Kébémer yal na ko yàlla yërëm mais góor bi mu naan mbaay suma góor ci kay mais yàlla na ko yàlla yërëm Seydi Aboubacar tabaarak radiyallahu anhu ku ko bëggoon la te dafa kër yow yow tamit ku bu góor góor bi mu naan mbaay dafa doon mag mu doonum bor- borom xel dara mag bu amoo xel ci xel ma rafet te xel ma rafet te bari lu mu xam te bari lu mu xam mu ne Seydi Aboubacar mu ngi ci la moo kër si jikko jikko du ñett du ñett ñaar rek la ñaar rek la jikkoy puso jikkoy pusa ak jikkoy paaka ak jikkoy baax jikkoy puso jikkoy pusa soo su waa jàppee puso su ma jàppee pusa di dàq bën bën ba jàkk bën bën amit buum am na buum su ko ca solee su koy soyee ma ngay boole ji ñu waroon a ànd te mënuñu boole seen ma bopp ngay boole yi ñu waroon a ànd te mënuñoo boole seen bopp wala ñu àndoon ba mu yàgg ñu teqalikoo te mënuñu boole seen wala bopp boog ñu ànd ak lu yàq ñu ceppeel ko te mënuñoo boole seen bopp mu jóg leen boole foofee puso fa gën kon nag jikkoy puso moo gën ci ku baax ak ku ñu yaakaar boo fii di koy puso ko gën moo tax di koy puso moo gën ci baax ku baax ku ne mu ne ko paaka nag mu ne ko paaka rek waxtu wu ñu juute lañ ñaw ko nga waxtu ñu juutalee ñëw ko amee pomp ba ah tekki pomp ñu nga bëgg a teqali ñu àndoo ñu ne bëgg a ceppeel ñu àndoon yal nañ yàlla musal ci jikkoy paaka te jikkoo la ñu jikkoy puso te doon may ñu jikkoy puso sàmmal ñu bokk gi sàmmal na bopp bi
ak kóolëre ak gi wala rek te may ñu kattan ci doxante ko na mu rafete ni ko sëriñ Babacar waxe léegi maamam wax te ko may nga kàttan ci doxal na mu rafet suñ baax ci waxee ci xutba bi maam si di xaaj maa ngi wax te ñun ñëpp nañu xam ne ñoo bokk bii bu ñu wut te ñun ñëpp ñun xam ne bokk benn bii bu ñuy wut astaghfirullah ca madina ne astaghfirullah ca Medina laa ilaha illa allah ca madina la ilaha illa allah ca Medina allahumma salli ca madina allahumma salli ca Medina allahu akbar ca madina allahu akbar ca Medina assalaamu aleykum ca madina asalaamaaleykum ca Medina ak ca ak makkata ca Makka ak ca Pologne ak ca Pologne ak ca Amérique ak ca Amérique ak ca France ak ca France ak ca Allemagne ak ca Allemagne ak ca Fandène ak ca Fandène ak ci Tivaouane ak ca Tivaouane ak ca Touba ak ca Touba ca ca Njaasaan Ndiassane ca Laayeen ca Laayeen ci fu mu fu doon mu mën a ca muy dëgg te muy dëgg benn la ci benn yàlla rek la ca yàlla ca yàlla benn la ca yàlla
wala déet kon nag teqalikoo gi lu ko waral nee waaye loolu su amee ko rek ceqalikoo gi lan moo ko waral Sëriñ Babacar Si moo daan wax ne laa ilaha illa allah su ne deq laa ilaha illa allah ne suñ daaw teg si moo daaw ma la ilaha illa allah sene dekk ne la ilaha illa allah ñu daje ca laa ilaha illa ñu allah daje ëllëg ca la ilaha illa allah lu ñuy layyi laa ilaha illa lan allah la ñuy la ilaha illa allah Seydil Hadj Malick nee na suñu xaajmaay ne soo jógee waaj jëm ca jàkka ja loolu lay waaj jëm jàkkee dem bay bëgg a dugg dem bay bëgg a dugg dégg ca coow loo xam ne du ba du baatub laa ilaha illa allah coow loo xam ne ci jàkkee du baat la ilaha illa allah du qaala rasulullah rasulullah du alquran du alquran xanaa coow yi kese xanaa coow képp loxo jóg loxo jóg te du allahu akbar Allahu akbar.
xanaa ay yet xanaa ay yet.
dellul sa kër seen xaj may dellu sa kër leneen xew la lu leer
te loolu moom rek xew ci jamono bi moo xew ci jamono bi léegi yàlla ji su doon dëgg ñun ñëpp danañu juboo waaye yàlla ji kay bu doon dégg ñun ñëpp ñu bokk jub waaye dañu woote yàlla ba noppi waaye danoo woote yàlla ba noppi sa bakkan ne la soo ma ci boolewul doom li nga bëgg sa def bakkan ne la moo ci boole ko doon li nga bëgg nga ne ay ca nga ne ayca xarit bi la ëpp wërsëg ne la soo ma ci boolewul doom li nga bëgg sa porte man te boo ci bu boole wul kër li nga bëgg doo ko am ndaw si nga gën a bëgg ne soo soo ma ci boolewul dara du yow li sotti gën a bëgg boo ci boole wul kër dara du am nga ne yàlla man nag kat manuma ànd ak yow rek ci bàyyi fii nga ne ah yàlla man ko ànd ak yow rek te bàyyi fi yii ah daal di ko ci boole daal di coow ko ci ce qui fait que yàlla it da- tey lox tey boppam rek bu ko defee yàlla moomu dul bokk na moomu teel loxo loolu rek la loolu rek ka def waaye su fekkoon ne yàlla ju dëggu mu nekk ci xol yi waaye su fekkee yàlla ji dëgg góor a ca xol teqalikoo du mën a am waaye du àgg fii mu àgg du ñaawe nii mu ñaawe teqalikoo du mën a am waaye du àgg fi mu àgg du ñaaw yi nii mu ñaaw wuute du mën a ñàkk ndax yàlla ko waxal boppam wala yazaaluuna muxtalifina illa man rahima rabbuka wa lidalika xalaqahum ne wuute du mën a ñàkk ndax yàlla ko al boppam ne ci loolu rek ci laa leen bind te yàlla lu mu namm te yàlla lu mu nam il faut que moom il faut que ma laa tabdila li kalimatillahi walan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi taxwilan kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara yal na yàlla delloo si xol yi yal na yàlla delloo ci xol yi ci mbaaxam ak yërmandeem ci mbaaxam ak yërmandeem mbir mii nga xam ne nag moo xewit ci julli gi mbir mi xew ci julli gi
li ko waral li ko waral bi ci guddi ne bi ci guddi fekk na sax préfet ñëw na fa fekk préfet ñëw na ci moom
doon wut si ba xam ndax dégg nañu dara man it ma doon ko wut ci moom doon wut si ba xam dégg na dara ci meereen bi moom du ko wut ci moom mu ne déggaguma dara man tam looloo ma andi woon ma ne ko ñun tam mu déggaguñu ne dara ko dégg gu ma dara loolu ma indiwoon ci yow ma ne ko ma ne kat dégg gu ma dara ci weer waaye ba ci biir guddi gi waaye ba ci biir guddi gi
a- ay dégg-dégg dikk ay dégg-dégg nag dégg
bàyyi ko fu doy bàyyi ko ku doy bàyyi ko ci ku doy bàyyi ko ci ku doy te dañu wax ne te dañu wax bi kamalihi ni nee bi kamaal yi
aw bi ru'yati adlayni aw yu muy taxdalee ni aw jamaatin mustafida aw jamaat mustafida matug weer wi benn mu am ci matu weer wala ñaari way maanu ñu ko gis wala ñaar ñu maal gis ko wala mbooloo mu takku wala mbooloo mu tekk gis ko yooyu ñett moo tax ñu wari ne yii ñëpp moo tax ñu war te sallallahu alayhi wa sallam te nee na sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royteef wala déet mooy suñu réussite wala déet mooy suñu réussite ndax yàlla waxuñu ne wa in tutiicuhu tahtadu suñu borom nee na lu ci alquran bu ngeen toppee ci yàlla Muhammad rek ak jub
wa in tutiicuhu muy tuuti euro hu ji fu mu bu dellu di fu mu dellu ci sallallahu alayhi wa sallallahu sallam alayhi wa sallam kooku yi de su ngeen ko soppee mu ne koo kii bu ngeen ko toppee njub bi ngeen bëgg jub gi ngeen bëgg da ngeen ko am di ngeen ko am in tutiicuhu bu ñu tuuti euro tahtadu taxtadoo wala déet walakum fi rasulillahi ne war ko si rasulullahi iswatun hasana du dëgg sallallahu alayhi wa sallam nee sallallahu alayhi wa sallam benn sàmm dafa ñëw ne ko weer wi feeñ na dafa am benn sàmm moo tëdd ci woon ko weer yi feeñ na mu ne ko atantiqu bi shahadatayn mu ne ko ndax yow mii tudd nga ñaari seede yi daa tudd ko nga tudd ko daa ko tudd daa ko daa mu ne ko waaw mu ne ko waaw waaw gëm naa yàlla se- sa rasulullahi wa bilal c'est rasulaay wa bilaal ne ko yéeneel ne weer wi feeñ na fekk ni ko yéenee ni weer feeñ na ci benn sàmm benn sàmm rek bu dikk mu ne ko ndax gëm nga yàlla mu ne ko waaw mu woo bilaal ni ko yéenee ni yéeneel ni ne nañ dog ne nañu dog loolu nag ne loolu nag moo ñu dab ba tax ñu woy loolu dab ne bi bettam nu wat waaye yal nañ yàlla musal kuute goo xam ne gi dañ ko tëral ci suñu bakkan wala gis suñu bopp yàlla buñ ko yàlla ne nattoo yàlla yàlla mu ne woo yàlla dañ ko teg suñu bakkanoo jël suñu bopp yàlla mu ko lebee maarifatu al asbaabi muinatu ala taawili ne li am daal mooy lii mu nekk rek moo tax nu war loolu la moo tax kon su dee xam lii mu dégg moo tax ñu war ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala nee na ñaan suñu borom ba tabaraka wa taala yàlla nangul ñu liñ ci def yëpp yëpp yëpp yëpp boo leen ci def lépp yàlla nangul ci taaxaat ak ay daawaat ak sadaqaat ak lu mu doon topp yàlla ñaan ak xerxeeg lépp yàlla na ko yàlla nangul li nga xam ne ay njuumte la ci mu jéggale li ci njuumte yëpp ñu jéggal nu ko yi nga xam ne moom la weeru koor ëmb te sallallahu alayhi wa sallam wax ko yàlla defal ñu ko li ci woor ko woor ko ëmb te salaa salaam wax na ko yàlla defal na ko awaluhu rahmatun wa wasatuhu magfiratun wa axiruhu atqu min annaar waxuma kenn waaye man yàlla maa ngi lay seedaloo ne ne xamul kenn waaye moom de ñu seedoo yàlla ni man day li ma la ñaanoon ca jag sa yow defal nga ma ko ne moom de ñu ko ñaan ci saa yépp defal ko ko te yow xam nga ne boo may waxanteeg yow te yow xam nga yàlla xam ne moom waxante yow goldin sax ñaan na la ko nee na goldin góor gi sa ñaan la ko goldin bi ñuy naan waaw naan naa ko woon ak la gazette ba léegi suba bi ñoo lekk naa pharmacie dama ko ñaan yëpp yëpp ñaan la yëpp def na ko yow yëpp yëpp ko lépp de yi mu ko ñaan yëpp def na ko nee naa ko ceeb nee na woon yàlla ceeb yow yàlla yaa ngi nii ñu lay yàlla jëm ngi nii waxoon na ko moom waxoon naa la na ceeb waxoon naa la ne ceeb.
wax la dëlwin wala dëri.
wax la suukar wax la suukar.
wax la café wala kàpp.
wax la attaaya wax la attaay.
banaana banaan.
orange orange.
mandarine mandarin.
pomme pomme.
yëpp jox nga ma ko yëpp kat. bu ñu yàlla ko waaye li mu soxla woon yëpp daal di ko def.
yàlla yàlla yàlla ma fayal sa bopp yàlla yàlla yàlla ko la wax.
ñaan ñaan ko kenn mësul dégg nga ko kenn mësu ko dégg de kenn du ko dee.
waaye buñ ne du ko du ko dana ko nangu de dana ko nangu de ku ku mën a fay yàlla kan kenn mënu ko kenn maa ngi wuutu ñëpp di leen santal yàlla moom nag suñu baax yëpp di sant yàlla.
ba ci salleen bii toog ci sama wet ba ci tànneel bi toog na.
moo ak ak ak Touré Touré ah bi tur ak tur yëpp.
ñoom ñëpp maa ngi leen bokk di santal yàlla ñoom ñëpp ñu leen bokk sant yàlla.
kilifay lislaam bi maa ngi leen di wuutu di leen santal yàlla mais seen yëpp ñu leen di wut ñu leen sant yàlla.
nguur gi dala ci président ak ñëpp ak kilifa yi fi nekk yëpp maa ngi leen di wuutu di leen santal yàlla te maa ngi yaakaar na yàlla dana ko nangu góor gi daa ca président ba ci suuf ak kilifa yëpp ñu leen di sant yàlla te seen jiw di leen sant yàlla yàlla dafa nam.
yàlla bu yàlla dañ di ñu dolli ci ngëneelam yu bari yi yàlla yàlla tey dina doon ci ngëneel yu bari yi.
jéggal ñu mboole mi rëcc rëcc yi weesu woon mboolem rek ci yoon yëpp mu jéggal la.
mboolem xuquuq yi nga xam ne ci suñu los la nekk te ne yoonam nekku ci yal na wuutu kenn ku nekk fa wala yàlla àtte rek suñu borom. te yàlla yow ak tey tey yoon nag yàlla yàlla wut seen àtte yooyu yëpp.
bu leen ñu fàtte ci ñaan du ñu leen fàtte ci ñaan waaye ñëpp dañu ànd ba ko fàtte ci ñaan ñëw na ko la buñ xam ne dina fàtte.
yal nañ yàlla boole defal sutura yàlla yàlla boole si tool nañ yëpp.
yal na yàlla indi xéewal yu doy yàlla yàlla indi xeewal yu doy.
yal na yàlla indi wér yàlla yàlla indi ci wér.
ñi tukki ci ñun yal na leen yàlla wattu ak la leen yóbboog ña ñu àndal surtout ci sunu. yàlla yàlla wax buñ njëkk si ak ñeneen ñi àndal ñëpp.
ak ña daaba ja nekk seen loxo ak ña daaw yàlla seen loxo.
ak lu ñu mën a tukkee lu ñu mën a tukkee.
moo xam dañu liiru moo xam dañoo liiru.
wala ñu war wala ñu waat.
moo wala ñu dugooto wala ñu dugg oto.
wala avion wala avion.
wala gaal wala gaal.
lu mu ci lu mu ci.
ak la mu yëpp ak la mu yëpp.
yal na ko yàlla dugal fi xifzihi yàlla ko yàlla dugal ci wattoon.
ak la mu yëpp ak la mu yëpp.
wa riayati ak càmmam ak sàmmam.
wa nasri ak ndimbalam ak dimbalam.
wa taayidi ak digaralam ak dëgëralam.
wa taysiri ak ak jàppandalam jàppandalam.
yóbbu leen ba ñu àgg bu ñëwee ba ñu àgg.
dañ fay sàkku ñu am ko fekk ak ñu am.
kenn bañ leen delloo bañ leen delloo ci.
ñu dellu siyaat ñu dellu si waat.
fekk njaboot bi fekk njaboot.
fekk ñu fekk ñu ci jàmm ci jàmm.
yal na ko yàlla yàlla ko def yàlla yal na ko yàlla defee noonu.
di defee noonu yàlla ko yàlla yi defee noonu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه اللهم إننا في حماك وتحت لوائك اللهم إننا في حماك وتحت لوائك فاحمنا بحماك وانشر علينا لواءك واصرف عنا بلاءك الخارج من أرضك والنازل من سمائك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت عليك توكلنا والتجأنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نستغفرك لما اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك فيه ونستغفرك لما أردنا به وجهك فخالفنا فيه ما ليس لك ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبناه ولكل معصية ارتكبناها ولكل ذنب أحاط به علم الله خطأ كان أو نسيانا أو عمدا أو ليلا أو نهارا أو حضرا أو سفرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم ما أعظمك وبحالنا ما أعلمك وعلى فرجنا ما أخضرك أنت ثقتنا ورجاؤنا فاجعل حسن ظننا فيك شفاء أمراضنا القلبية والجسمية واجعلها بعد الشفاء لنا طهارة وكفارة وزيادة وأطل بها أعمارنا وافتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا كما ألفت بين الروح النوراني والجسد الظلماني بحق قولك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه أنت عزيز حكيم أنت العزيز الحكيم اللهم سوء صفوفنا ووحد كلمتنا بمحض فضلك وجودك وكرمك اللهم عدنا من عبادك المتمسكين بكتابك المبين وسنة نبيك الأمين وأحينا وأمتنا على طريقة شيخنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني عاضين عليها بنواجذنا بلا تبديل ولا تغيير ولا تحريف لا تاركين ولا متروكين suñu taalibe ci suñu tarixa yal na dëgg keneen it fa nga aju sa taalibe yal na fa dëgg la nga fay wut ci yàlla yal na ko yàlla jaarale ca ka nga yaakaar mu teg ko ci sa loxo te wattul la ko ba seytaane bañ ca am yoon ci dara jëy nañ ci bi sallallahu ñu ngi ziyaara ñëpp suñu sëriñ Baye Abdoul Aziz waxtaan woowu la waxtaan ca mbooloo ma ginnaaw bi sëriñ Babacar si ibnu Cheikh Haj Mouhamadou Mansour si ibnu Cheikh Haj Malick si radiallahu taala anhuma doomam jiite julli gi xutba ba noppi suñu technicien bi nga xam ne nag moom ni ñu wax ne mooy technicien kër ga di Ibrahima Ndoye moo ko jëli woon
ñu ni boo ko génnee nag ñi ko moom moo di miskin yi mën nga jël benn saa jox ko benn miskin wala nga jël saa nga jël mudd yu bare muuru koor mu bare séddale ko ay miskin nee nañu ndax nit ku ko mënul ba lor di ko ca bëgg a dab mu di ko génne te bu ko génnee du dese dara ndax dagan na ci moom bu ko génnee ba noppi ñu joxaat ko ñu joxaat ko ko am na ñu wax ni bu fekkee ni la mu génne woon joxe ko moom lañu ko ni yow day amuloo dara am ñu delloo la ko nee nañu kooku du baax loolu kenn du ko def mën nañu ko jox nag bàyyi fa la mu joxe woon te saraxaat ko ca lañ fa joxe te moom joxewu ko bëgg nañu ci génne gi itam ku koy génne nga bañ ca gis sa bopp bañ ca gis it ka nga koy jox gis ci sa bopp ni eh sa waay day bu dul woon man ci kori gi dana dee xiif ndax maa ko gaawantu jox ko sama asaka xoole ko boobu bët di ko waxtaane wala nga di ko ree wala nga bëgg su ëllëgee fu mu la gis nettali la ko yàlla bëggeewu ko noonu dafa bëgg soo ko dee jox nit nga jox ko ko sa digganteeg moom te yàlla tax sa kontaan it sant yàlla am ci teew xol ni maa ngi gërëm yàlla moom mi ma baaxee ba woon ma benn jaamam bu ma tane te li ma li ma ko tanee moo ma ko jox ba ma mën ko dimbale mën cee jële tuyaaba nga am ca booba xol ak booba kontaante ak boobu yéene waaye doo ci doo ko gis rek nii yaa ëppale kii yaa ko gën jox nga ko loolu jàppi ci sa xol ni rek lii kat yàllaa ma ko teg ba noppi jàppandalal ma ko alhamdulilahi rabbil alamin rek ci war topp mu ne koo xam ni ñëwoon na ci jullikaay bi mbedd mi nga jaaroon boo dee ñëw na nga jël beneen mbedd jaar fa loolu lu tax pour ñëpp xam ni tey jii la bésu julli ñëpp xam ni tey jii bésu mbég la ñëpp yëngoondoo l'islam riir sabat formam ni ñëpp dégg su ko defee nag képp koo xam ni kii yaa ngi koy romb nit ñaa ngi koy romb te kontaanul ci ci ci ci l'islam kontaanul ci diine xolam gën a mën fa nekk di wañaaru ci lu mu dul mën dara tey jii mu ni bés la boo xam ni bésut ñaan la ndax kiy maye bés bu nekk mi ngi maye waaye bésu tey bii dafay maye ba noppi barkeel teg ca kon nag mu ni gaawantu leen bu leen sànq bëccëg bi ci ay sañseeg dox ak fu nekk ngeen dem fa waaye boole leen ci nag di ñaan yàlla li ëpp ci bëccëg bi ñaan leen ko ci njëkkam yi nga xam ni foo tourné dal ci kaw mbaamu dal ci sa kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lii ñu doon wax ci zakat asa weeru koor yi ñu woor ba tëjee ko lii mu des génne asaka ja ku ko génnewul sa sa koor du àgg ci kaw dafa du àgg ci kaw du wàcc si ci suuf dafa yem ci diggante bi lu dul nag nga jañee ko sa zakatul fitri mu mu yóbbu ko sa kaw mu ni bés bii bu fekkoon ni yàlla jëmm la juy génn di daje nit ñi di leen xool dañuy wax ni bés bii dana ko ci def kon mu ni ci ñaari iid yooyu dana ko def tabaski ak kori mu ni kon nag génn leen seeni kër dajeeg seen boroom fu ne ndax ngeen jot ci yërmandeem ji ji muy jagle ay jaamam tey waaye nag ku ciy génn bul wax ni ah man de bëgg naa génn waaye dama rus su ma génnee taseeg nit ñi ndax aw ma mbub mu bees wala aw ma mbub mu mbub mi ma sol daa ren moom lay jullee woon daaw te nit ñi dañ koy xàmmee nee nañ loolu yoonu yàlla nekku ci yàlla daal li mu xool moom xolu jaam rek la seet te sañse boobule ak wanewu googule bokk na ci tilim tilimu àddina rek moo tax ñu ni kenn du ko def ci xelam wala mu di ko yittewoo lu dul ku réere boroomam kon ñuy dellu di sant suñu boroom moom mi nga xam ni koor kori ak bés yi ko jëkkër yi ci topp yépp moo ko moo ñu ko xéewale xéewale ñu diine teg ñu ci lii mu ci teg pour wutal ñu bunt ëllëg boo xam ni bii dana yomb danañu yomb joti ca moom ba lu ñu ko ñaan mu jox ñu ko ci xéewalam te xéewal yi mu ñuy jox kenn xamul na mu toll waaye fi mu nekk lii yëpp bëgg a dolli rek la ah bokk na ci itam ñu feddaliwaat nag xol yi ak pas-pas yi jéem a delluwaat ca yàlla ragal ko jox ko ak xam ci suñu digganteeg moom jox ko joxante ak yi mu ñu sant ci suñu diggante tey wax te bañ a noppi tey wax wax ju baax ju rafet bokk na ci itam jéem a yar sa bopp ba mën a yar sa njaboot ba bu ëllëgee nga mën leen sa yar booba mën a jeexital ci ñoom ñu dunde ko ba mu musal leen ci mbugalum safara yu ëllëg nee na addina kat fi la ñu yàlla teg ñuy fi dund waaye ku dara saful lu dul addina yi kese nga génn ca yàlla loo lu lu yàlla dugg nga génn ca loo dugg génn ca yàlla nee na na nga xam ni looy wut fii lay yem bu ëllëgee doo ko fekk dara te loolu moo di ci benn baat moo di texee di ëllëg yàlla nañ ci yàlla musal ak nag boo taxawee ci kanamu yàlla mu dàqale ni la bokkuloo fi kon nee na addina bii yàlla def ñu fi indi xam ñu ñu def ci suñu xel ni ëllëgkat àllaaxira la ñu jëm kon fii dañu fi wut si yóbbal bu ñu yóbbu ci kanamu yàlla waaye du ay dundalu bakkan wala leneen ak leneen kon wut leen ci yóbbalu addina bi jëf leen si nañu fi jëf yoo xam ni bu ëllëgee moom la ñuy duggaale ci bàmmeel moom la ñuy toogaale ci barzax moom la ñuy teere ci kanamu yàlla nee na addina kat li ci lew li nga tuur sa ñaq ba jot ca boo defee ni lew na la ba nga yóbbu ko ca yàlla yàlla dana ko luññitu réglé ko xisaab la ca ba ba mu tegu ci yoon nee na nag li nga xam ni nag moom dafa xaraam booy boo def ci sam xel léegi ni booy boo boo mënee nga delloo ko fa nga ko jëlee woon mbugalum ëllëg rek la ak i lëndëm lëndëm ak i lënt sa diggante ak sa borom. nee na ñu fonk julli ndax julli moo bopp ñoo yem ci jëmm ni julli mel ci diine noonu la bopp mel ci jëmm wala ni bopp mel ci jëmm noonu la julli mel ci diine nit xam nañu ni danañ ko jéggal sax bu tëlee ci koor ci ay chart xam nañu ni am na ay fan mu sañ a dog waaye bu dee julli nag moom julli moom mi ngi mel na nga ni diw dañu dagg tànkam ba dañu dagg loxoom du ko teelee doxi soxlaam waaye dagg nañu bopp ba kenn mësu ko dégg dagg nañu bopp ba ma ngay dem kenn mësu ko dégg nee na nag waxuñu sax julli fonk ko ak farataal ko waaye yéexe gi lay bañ yéexe ko ci waxtoom nee na yonent bi xam boroomam ca kemtalaay la ko yàlla xamal ci boppam de moom te lu nit di di di teg ci sa kanam bari ko dalale sam xel yonent bi la ci gën a jekk moo la ko gën a moo la gën a jege yàlla waaye moom day àggoon na ci xam yàlla ak ragal ko ba su dee julli xam ni joteetu la kenn dara lu dul yàlla mu mu tiit ga muy jàpp daf dafay tiit ba da ngay dégg dënn ba muy riir bu dee julli ni kàddir di baxe bux bux bux nga di ko dégg kon nag ku dul kooku ku dul ndegam koo koy tiit ku dul kooku sam xel waru da dal nee na yàlla subhanahu wa taala soloo na daaw yonent yàlla daawud alayhi salaam ni ko yaa daawud waxal ma sa giir gii ma la yónni ci ñoom muy banu israil ku ci bàyyi benn julli daa taseeg man yowmal qiyaam ma génn ci yow jëppi la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dajeeg yàlla bàyyil ko benn julli sànkal ko benn julli yàlla dootul seet ci lan ko indil dara moo xam yu rafet la ak lu mu mën a doon dootu ci seet dara mu ne nag ku bàyyi julli ci tey ko génn nga ci diine ku dul julli yéeféer bi mu ni kon yéen jaamu yàlla yi li leen yàlla sant ci waxtu yu juróom nañu nañ ko jëfee ku ci mën ca la mu la teg ci aj màkk na nga ko def te defee ko ca anam ga mu gën a lewe et lépp paas dem baa xiifal sa njaboot dem ngir bu ëllëgee ñu ne la allah ji yàlla santaane wu ko noonu na mu ko santaanee man istataa minkum nga dem man istataa ilayhi sabila nga dem ajee ko noonu koo xam ni kii amuloo benn war-war booy bàyyi sa gannaaw sa njaboot du ñu xiif bàyyi woo bor te la nga yóbbuwaale dana la doy ba doo loru doo lor keneen mu ni ngeen ajee noonu woor seen weeru koor bi nga xam ni yàllaa ko farataal ci ci suñu kaw li leen yàlla di xéewale itam nee na ngeen génne ci li leen ci yàlla teg mooy li laabal